voilà jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñi ngi jàkkaarlook benn champion ba nga xamante ni bii nag nekkatul ku ñuy présenté ci làmb Sénégal ñu koy wooyee Tanor mu dëkk Diourbel wante nekk écrit Lamsar Tanor ñu ngi lay nuyu. may fay Mbaba daf ngi si jàmm. ñu sant bu mbër foo toll ci làmb. waaw di continuer suñu entraînement. Uh-huh. di wàcc ni ko doon defee suñu rek. Uh-huh. di ñaan ko ñu combat. ñu gëj laa gis ci làmb ji lan moo ko waral gars yi lay moytu wala yow yaa bëggul combat. waaw loolu yi ñooy moytu sax. Uh-huh. que nekkul sa li ngay laaj moo bëri tamit. non non man moom làmb yaakaar sa cachet diisul. a am ci làmb ci ñaata combat nga def ci arène bi. wala seize combat. ñaata victoire. treize victoires trois défaites ñu njëkkee ci ñi la daan kan ak kan la daan. Cheikh Niang moom a daan. Mhm. Boubou Thiaski Kati. Boubou Thiaski Kati junior. waaw te Cheikh Niang bëriwaat nañu. Cheikh Niang bëriwaat ngeen nga fayu. ñetti défaites yooyu bu la ci gën a metti. non lamb moom kenn booy soog a daan défaite boobu moom ban nga njëkk daano daanoo. Cheikh Niang la njëkk a daan mais mais sa defet ak Kati junior tamit metti woon na la. waaw métti na mais làmb la rek mais li la njëkk a dal daal day doy waar trop. Uh-huh. loo ñëw ci ñi nga daan. waaw treize combats yi ñu daan parce que dama ciy cité ñi nga xamante ne nii foo waaye xam na. Uh-huh. ku ci mel ni double Tyson. Uh-huh. double Tyson bu Kaolack. double Tyson bu Kaolack mosoo am def. daan nga ko. man rek maa ko daan yaa ko fekki Kaolack. daan ko mel ni Gabar ñu xam nañ ko. Gabar Singh. waaw. ku ci mel ni Vandam. Vandam. ni Mbaye Guèye Junior. Mbaye Guèye Junior. Mm-hmm. ku ci mel ni almaami. Mm-hmm. ñoom ñëpp ku ci mel ni suudu bu am mm-hmm. ñëpp. am na mais lan moo tax say combat di yéex. waaw loolu moo ma yëm sax avant tout nag damay gërëm ki nga xamante ne nii Thialis dañ koy wax yaakaar naa ne moom aussi moom rek moo ma bëriloo ci année bi ñaari combat. Pape Thialis Pape Thialis. moom moo ma bëriloo ñaari combat ci moo la tëgg ñaari yoon ci benn ñaari yoon ci bi. di ko nuyu aussi parce que aussi moom it di ko nuyu parce que moom Jurbel la dëkk. aussi fàttewul. ñun ay doomu Jurbel la. moom aussi mu ngi ciy jàpp bu a baax. Mhm. ko wax li mu doon def mu gaawati rek parce que li mu toll nii namm nañu. Mhm. waaw fi nii kan moo nekk sa xel fan nga teg sa bët kan nga bëgg a bëre. fi nii comme li ma doon wax keroog rek Modou Modou Anta bu ñëwee mu may ko sens. Modou Anta ban. Modou Anta benn. Modou Anta bi bëre jën kay rek bëri ki dem. loolu li ma la wax sa loxo. non fa nga teg sa loxo kawe na. Modou Anta Baye Fall bi. la yor de. Franc ak combat Francaise Ndoye ñoom ñaar ko ci daan bëgg naa. ah ku daanu. ku daanu tamit bëgg daan laa gën a bëgg nag. ku daan nga gën a bëgg. ak kan. bëri ku Jam Thierry su ma ko amee damay jël. Jam naa fi sa combat ak moom ñu ngi ko doon dox nu mu mujjee. non sottiwul. sottiwul ci yow la yàqoo. non man combat du yàqoo ci moom. Hmm. waaw. ci yow. combat du yàqoo kon ci moom la yàqoo combat du yàqu ma ñëw jël ko mais hmm. day yàqu nga jël ko. li mhm. ci mel ni góor soog su ma ko amee damay jël. góor soog ban. waaw men benn. waaw. <laughs> mais man am nga fit de. ñi ngay tudd nii. ñooñu déggoo li ma la kenn gënuma ci palmarès treize victoire kenn amu ko fi. treize victoire waaw macha allah moom. ñoo lim. Mhm. kenn gënuma ci palmarès. déggoo li ma la wax bu ñëwee damay jël. Mhm. Modou Anta bu ñëwee nga jël. Franc ñoom ñaar bu ci daam bu ñëwee ma jël. dem Thierry bu ñëwee ma jël. ak ñeneen ñu ñooñu nag parce que man làmb laa fi nekkal promoteur yi kenn ñëwul seet si la. promoteur bi Thialis daal am na lu ñu nekkoon di wax mais maa koy déglu di mm-hmm. ni bool yëpp. daal. Mm-hmm. man mm-hmm. lu ma am làmb moo ma ko may tamit. maa ngi lancé promoteur yëpp toog naa presque ñaari at bëréewu moo xam a ñett. te su ma sañoon loolu sama coow la. su ma sañoon suuf suuf a que nekkul tamit dégg naa sa waay loxo bi daa diis de. waaw mais yooyu moom bàyyi nañ ko dañ ñëw rek ñu bëri bëri yooyu moom. bàyyi nga lan bu fekkee loolu lañ doon moytu dañ ñëw ñu doxal. bàyyi nga lan. yooyu moom la. bàyyi nga dóor bi. non yooyu moom nañ ñëw rek ñu yor tuuti. bëri dóor la ci wax de est-ce que da ngay da ngay da ngay yor da ngay yor yor gaa yi. non non yor moo leen sax yooyu bàyyi naa ko léegi moom moo yor. Uh-huh, uh-huh. kon kon fi mu toll nii daal loxo bi wàccee nga ko quoi. Uh-huh. di aussi di lancer waa les messages waa autorités yi nga xamante ne ñoo nekk Diourbel Euh, parce que ku ci mel ni di aussi sama fan président fan club Papis Ndiaye. Papis Papis Ndiaye maa ngi ko nuyuwaale. Uh-huh. mooy sama président fan club Diourbel. Uh-huh. ku ci mel ni Etienne Ngom. Uh-huh. ku ci mel ni sama directeur Moustapha Guèye. ak euh, sama directeur bu nekk Kees. Issa Cheikh Sall. Issa la fu de taw. dafay rey de. maa ngi koy siyaar bu baax a baax di ko jox wàcc waayam. waaw ndax moom sama waay lu ma nekk mu tax. Alpha. waaw kooku sama mag la kooku moom wax dëgg yàlla amoo fayam daal la ma koy ñaanal suñu doon doon. Mmh. siyaar mmh. mmh. sama mais dama dama bëgg ñu ñëwaat tuuti ci sa combat ak Mbaye Guèye Junior. parce que combat boobu dafa nekkoon combat bu bëri coow su ma juumul ci Bombardier Eumeu Sène ngeen bëri. waaw jour journée boobu ngeen bëri yenn nekkoon com journée combat spécial. yenn nekkoon combat spécial bi. ñëwalaat ñu ci li nga bëree woon ak moom. waaw Mbaye Guèye Junior moom comme xam nga. parce que Mbaye Guèye dafa mel ni ku la xeeboon. waaw man xëy xeeb da nga mais képp ku ma xam doo ma xeeb parce que làmb yaakaar naa ne ñun juubel bëri su ma lay nga keroog bi ma ñëw instant bi def bëri simple bëri simple dañ koy jàng si rek hmm. mais ñun bëri dóor lañ fooy ci lañ jàng ci lañ defi lépp hmm. Hmm. ñun bëri def rek dañuy ñëw di ci jàng si nag lañ ko keroog kay booy bu waaw mais xam rek <laughs> comme li ma la wax rek boppam la dañuy jàng si rek mais liñ moom boo fekkee rek nga xam ne suñu sa combat bay gay si ñor waaw su ma commande ba jël Cole comme li ma la wax rek moom xëy na ndaanaan la champion la. Mhm. def na li mu waroon def lépp ci làmb mais ñun ay xale ñu aussi am nañu bëgg. Mhm. bu ñu ñëwee dañu def fulla ak fayda rek. Mhm. lépp lu làmb di laaj ñu def. arbitre soufflé. ma ci kawam. ñu xeex. mu ñëw mooy loolu. mu ñamal la coup. waaw mais mu dóor la da daan mu dóor ma. non xeex moom. daje la rek mais ku yi bi ñu dalantee boo xoolaatee vidéo yi di nga xam. kan moo ci jël coup moromam. yaakaar naa ne jëlee bi ñu dajee ñaar. am na ko ci xaw a am na ku ci ñëw te heure ñëwam na ku yor. déggoo li ma la am na ku ñëw te heure ñëwam jotul. kon da a wax ko andi. déedéet wala hmm. ana waa Lamsaar. maa ngi siyaar ñëpp. ñëpp ana Sita ñoom Tidiane gaa yooyu noonu. Sita Tidiane Faye gaa yëpp ñu nga fa ay coins yëpp maa ngi siyaar. Mm-hmm. di nuyu sama mbokk aussi su ko def waa. maa ngi siyaar bu baax mu dem États-Unis. waaw moom moom moom dégg naa Forza ko dàq mu génn Sénégal. non kooku ngay ñëwaat. ngay ñëwaat parce que moom suñu mag la suñu yële la. Mm-hmm, daanaan ko siyaar bu baax di jox wàccuwaay. Mm-hmm. ay ci kàddu gu mujj gi. waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. di ko wax euh, ñun amuñu lenn lu Jurbel. di waxaat di woote waa ñun Jurbel amuñu lenn lu Jurbel autorité Jurbel Mhm. ñu jàppale ñu. Mhm. du sax man kese. Mhm. képp kuy mbër. muy mbër muy promoteur. lépp lu ci waay di yëngu nañ ko jàppale doole li Pape Thialis di def keneen di ko def ak Amel mi di ko def buñ ci jàppale rek dina baax incha allah. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax gars yi nañ ñëw nam naa la.